waaw salaamaaleykum wa rahmatullah tey jii le 5 novembre dimanche 5 novembre à 23h Baye Fall daa ñëw nañ fi ci Jandu Mahwa defat liggéey bu am solo liggéey boobu nag mooy lenn ci kër yi am apartement bu ne ci biir boo xam ne nii am ñu fu léewoon di def naka suul noonu di jaay seen bopp fekk nañ nag góor ak jigéen ay góor ak jigéen. yu takku ba jàpp nañ leen ba yóbbu leen jantu maxwaa kër kër maam si rafaal nga xam ne rek wax dëgg yàlla Baay ñu ngi ci liggéey ba am solo defoon nañ ko bëkk dem fan yaay ca Daaru Tanzir wala boog Touba Njaareem te defaat nañ ko fii ci jantu maxwaa waaw kon ngeen xamee ko noonu rek waa lañ jàpp lépp nag yóbbu nañ ko Baay Faal ga dañoo ñëwaat nii tey ngir tëj apartement bi jox sëriñ bi caabi ngeen xam ko noonu rek fekk na fi yu doy waat salle de bain beeg fu nekk fekk nañ ko fa kon ngeen xam ko noonu rek jërë ngeen jëf. waaw tey la cinq dimanche cinq novembre Baye Fall defat nañ liggéey ba mu solo fii ci Jannatul Mahwa boo jógee hôpital Ndiaye jëm romb na Touba Fall te la benn kër boo xam ne nii ñu fi nekk doon def na ko su noonu di jaay seen bopp Baye Fall defat nañ liggéey ba mu solo le cinq novembre. dimanche waaw kon rek ngeen xam ni Baye Fall ñu ngi ci liggéey bi nga xam ni moom lañ sëriñ bi sant kon dee jaajëfal baax wax salaamaaleykum wa lii lépp daa ci appartement bi waaw gis lépp ci appartement la bokk waaw kon nga xam ne rek tëj nañ appartement bi ba ngi naan di ko yóbbu caabi waaw gars yi ji lañ caabi ji ba ko tali baa ngi ne la ngeen seen tali